dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo jàngoroy coronavirus ba muy dugg ci réewum Sénégal jamono jooje njiitu réew mi di président Macky Sall askan wi yépp la woo ngir ñu joxante loxo mën a janoo ak jàngoro ji man koo xeex ngir mu génn ci réew mi jamono jooje maanaam ñépp joxoon nañu ko bopp ak baat yéenekaay gii di réew mi ko dëje nee na union nationale bi nga xam ne moo amoon ci xeex woppi coronavirus maanaam daal dina yàqu la ko yàq nag bokk na ci njiitu réew mi di Macky Sall mi nga xam ne daal dinay deltu ginnaaw ci mesure yi nga xamante ni maanaam jëloon na ko yéen a gi nee na rentrée politique laa fi gis ci jamono joo xamante ni maanaam woppi coronavirus ji ma ngi jaaba jonge ci réew mi ndax ñi nga xam ne maanaam ñooy way politique yi ñoom ñëpp dañ ne woon pat pataaral maanaam di seetaan Macky Sall di ko jàppale jox ko bopp ak baata ñoom ñëpp jamono ji nee nañ poymet génn Ousmane Sonko démb lu mu yëkkul Macky Sall daf ko fàtte ndax moom la mu jàpp mooy Macky Sall dafa la ci mbir mi Déthié daal di génn yëkkatay kàddu Mamadou Lamine Diallo génn na Abdoul Mbaye génn na Assane Samb ci xëlimam yi nga xamante ni moom la ñu daal di dëgmal bu ngeen déggee maître Abdoulaye Wade maanaam yëkkati ay kàddu ŋàññi Macky Sall bu mu leen bett su ngeen déggee Idrissa Seck def ko bu mu leen bett su ngeen déggee Papa def ko bu mu leen bett yéen a kaay gii di réew mi ko dëjee ne en tout cas li am ba des mooy rentrée politique moom jamono ji am na ci réew mi yéen a kaay gii di Vox Populi ñu fekk fa Ousmane Sonko la mu xamle nee na Macky Sall xeex bi nga xamante ni maanaam moom lañ tekk ngir xeex woppi coronavirus daf cee daal di la ji maanaam daf cee tëlee Macky Sall ci boppam moo abandonné askan wi ni nga xam ne moom la doxalee daal maanaam mën nañu ko jàppee dafa dem ba mu yàgg mu ne askan wi mënatuma dara ci jàngoro ji maanaam wuy leen ak moom Déthié Fall nag la mu xam ne nee na Macky Sall maanaam day assumer ay responsabilité mënu ko nag mu daal di tekk ndombal tànkam ñaar rek moo fi am njiitul passif na nag li nga xam ne moo ñu soof ci Macky Sall métti ñu lool ci moom mooy nag lépp loo xamante ni Emmanuel Macron daal dina koy wax ci réewum France Macky Sall bu ko toppandoo bu ko wax ci réewum Sénégal te loolee mënul nekk France du Sénégal fii la Emmanuel Macron wax ne confinement Macky Sall ne confinement Emmanuel Macron ne déconfinement Macky Sall ne déconfinement confinement keroog bi ñu déggee Emmanuel Macron ne nag si ab guerre la ñu nekk Macky Sall ne cib guerre la ñu nekk ñu déggaat Emmanuel Macron wax ne virus bi nañu jéem a jàng ak moom xool nan la ñuy dundee ak moom ñu xëy suba dégg Macky Sall di ko wax Emmanuel Macron wax ne nañu ubbi école yi ñu xëy ci réewum Sénégal dégg Macky Sall ne nañu ubbi école yi maanaam toppandoo googee ci boppam moo mën a ñàkk Aminata Touré njiitul conseil économique social et environnemental nee na jamono jii nga xamante ni nag moom la ñu toll maanaam du jamonoy piccoo du jamonoy pàccoo yéen a kaay gi de la témoin nee li nga xam ne moo am ba des mooy déggoo gi nga xam ne maanaam amoon na ci réew mi jàngoroy coronavirus ji daal ko koy yàq Aminata Touré nee na ci ab catastrophe la ñu nekk te bu ñu nekkee ci catastrophe maanaam mënuñoo yëkkati beneen catastrophe di ko sa soof yéen a kaay gii de la turbine ne attention piccog mbaaloo gi doy naa ndax nit ki démb lu toll si ñett ci ay nit daal nañuy faatu ci woppi coronavirus ji yéen a kaay gii di Sud Quotidien mu ñu xamal la ñu mag la dal am xelam ñi nga xam ne ñooy waa église bi ak nag jumaay omariyen yi ñoom ba léegi ni daal ñoo ngi tëj seen bërëbu jaamukaay yàlla attendant maanaam ñuy xaar mbir mi yéen a kaay gi du l'observateur na mbir mi lu jor xaar la ndax bu ñu sukkandikoo ci docteur Massamba si la la mu xamle nee na pic bi ci boppam maanaam eggaguñu fa njobbaxtal gi eggaguñu guñu fa te nag nañu séntu catastrophe lu doy waar nañu ko séntu ci réew mi te nag lu doy waar bu amee ci réew mi li ko waral mooy investigation bi nga xam ne moom lañ waroon a def ci cas communautaire yi loolee la ñu defu la yéen a di réew mi quotidien mu ñu xamal na ñu Tambacounda lu toll si juróom-ñaar ñoo xam ne maanaam ay agent de santé amee nañu woppi benn ci ay sapeur pompier ca Touba amee nañu woppi coronavirus Touba jooje nag lu toll si ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay nit jamono ji ñoo ngi tëdd ci lali hôpital yi yéen a du l'Observateur mu ñu xamal naa ñu ci conseil des ba meroon loola Macky nag li nga xam ne moo ko merloo mooy compagnie aérienne franco néerlandaise bi nga xam ne maanaam moo génne ab communiqué daal wax ne ligne Paris Dakar maanaam danañu ko daal ubbi démb wane na ko maanaam ci conseil des ministres yéen a na waa DIC division des investigations criminelles ñoom jàpp nañ ay samba yoo xam ne maanaam ay arme la ñu doon defar ba ñu leen jàppee lu toll si ñaar fukk ak ñeent ci ay pistolet fekk nañu ko ak ñoom lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ci ay bombu gaz fekk nañu ko ak ñoom lu toll si juróom fukk ci ay matraque fekk nañu ko ak ñoom yéen a gii di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu Bara Touré mi nga xamante ni moom lañ doon njortu ne moo rey ñaari doomam ca Touba moom daat na koy nangu ci l'observateur moom Bara la mu xamle nee na dafa sacrifier ay doomam enquêteurs yi na ko foo ko teg mu ne man ab mareyeur la samay mbir da doon dox dafa dem ba doxatul ci libération moom Bara la mu xamal enquêteurs yi bi ma reyee sama ñaari doom ba pare dama changé seeni yére changé sama yére dem sa jumaa ja julli ji yéen kay gii di Vox Populi mu ñu xamal lan ñu Bara moomee yemul rek ci rey ñaari doomam ndax bi mu reyee ñaari doomam ba pare am na menn muus mu ñuul moo xamante ni daf koo rey jël benn xaj jël ak buum takk ko ci baat bi ba xaj bi waaj a dee